ah oustaz Maodo fey tënku xabaar yi amati na solo na muy amee solo saa su ne dellu di la nuyu di la bëggee di la siyaar di amati mbégte waaw tey bu la blanc laa gis de. waaw maa la ko wax. fii waaw ah, bés bu nekk la cay xew. mais nous sommes en France euh, <laughs> ah non non c'est pas c'est pas les couleurs de la France ah pardon ok. Ah, ah loo gis ni waaw vert gis naa ko foofu. ak lu xaw mel lu marron. xaw déedéet jaune. ak jaune waaw. waaw ak ak bleu. déedéet rouge. Ah, saas nag aussi takkoo ah. say verre. waaw waaw damaa xaw a sori. ah, ah rouge vert jaune ah d' accord. non saas da nga takkul say ana say verre. ñoo ngi nii ah d' accord lii mooy vert jaune rouge ah. waaw <laughs> ma ko. ah déet. <laughs> day na waar. ko wax waa léegi rouge koy waxee. waaw rouge nu ñu koy waxee waa ji yow tamit loolu. nga vert mooy. mooy gu mooy gàncaxu. waaw jaune euh, mooy. ah waaw kay. mooy gu yolu. couleur bu yolu ah euh, mooy couleur bu yolu waaw kon vert mooy gàncaxu. am na nag am na nag ñu wax mboq. mboq waaw. Ah, kon euh, verte mooy gàncaxu. waaw zone mooy. mboq wala couleur bu. waaw bu lan. xonq rek. waaw zone. mooy mooy bu yolu wala bu. bu yolu wala mbokk. waaw rouge mooy xonq bi. waaw très bien kon loolu leer na. maa ngi lay nuyu di la bëggee di la ziar. Euh, laata mu ñuy xuus. non wërëf wërëf tudd ay safar. xam nga waaw déedéet déedéet déedéet bàyyi rek xoolal bàyyi rek dinaa nga sama émission bi dinaa ñëwaat ci loolu léegi léegi léegi euh, laata ngay xuus sax di dugg ci émission bii nga xam ne moo nu tax a jóg di Café Touba euh, lii xew-xew jamono yi ci Afrique démb ba léegi Ivoirien yeeg ñuy woow ñu ngi ñuy woowee fu ne euh, média ya nekk Côte d'Ivoire jamono yi lañu xëyee Euh, démb ak tey xam nga yéen moom bu ngeen xëyee yéen a ngi nekk ci ay détails mais am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi nekk ci le concret bu ko defee tey koo fa foofu ca Côte d'Ivoire boo fa demee euh, médias yi ñu xëyee yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp journal boo ubbi rajo boo taal télé boo taal lii la ñuy waxtaanee. Guillaume Soro bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci pour cet entretien exclusif accordé à Sud FM Sen Radio. Alors, Monsieur Soro, la présidentielle ivoirienne est prévue ce 31 octobre Avec le recul, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le candidat recalé? Je veux parler de Guillaume Soro. Alors, autant vous dire les choses très clairement, je suis non seulement inquiet, mais très préoccupé parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, le président actuel n'a pas réuni les conditions d'une bonne élection. Or, on sait qu'en Afrique, les guerres généralement partent des élections mal organisées et des élections impréparées. Donc, je suis très inquiet. mu ngi noonu euh, kooku ngeen dégg mooy Guillaume Soro qui se di très inquiet euh, nee naa la euh, bu ñii di xëy di nekk ci ay détails ñeneen dañuy xëy di nekk ci lu concret jamono yi boo demee Côte d'Ivoire lii la noo waxtaane mooy Guillaume Soro mii jaar Sud FM ba tax na am na Ivoiriens yu bëri ñu mayoo oh gars eh vous êtes fort de ah, jamono laaj maa la ko wax waa na ngeen def nag. yow ku la yóbbu Côte d'Ivoire nga wax ak ñoom maa la ko wax. ku la nga wax ak ñoom. maa la bu baax sax. oh gars noo ko waxee eh, oh, oh oh gars. Oh, oh. Eh, vous êtes fort ah. vous xam nga comme ñu ngi ñu ngi ci concret looloo waral foofu ca Côte d'Ivoire jamono yii yëpp ñu ngay waxtaanee loolee di euh, élection yi rawatina Guillaume Soro et sa sortie sur la première radio d'information du Sénégal justement duñ ca yem puisque ñu nga jëm ci élection Côte d'Ivoire yooyee dinañ dugg xuus ci élection Guinée wante dinañ dugg xuusit xuusit ci élection euh, Amérique parce que nee naa leen ñun yemuñu Dakar passé nañ Sénégal te ñu ngi Afrique waajal leen nag parce que Sud FM Abidjan ngi ñëw. station euh, station régionale weesu nañu ko ñu ngi si station panafricaine. waaw Sud FM Abidjan. waay Sud Conakry. Mm. Sud Bamako. Sud FM Banjul moom mu ngay euh, waaj a euh, tàkkaat loolee lépp nag ñu ngi leen koy waajal xam naa directeur bu ma déggee ne bul génnee suñu secret yëpp waaye <laughs> waaye ma waaye maa dugg foofu kon nag laata ñuy xuus ci Café Touba ma dellu si. Sud FM, radio au cœur des présidentielles africaines et américaines. La présidentielle en Guinée est prévue le 18 octobre 2020. Tout sur ce scrutin avec notre correspondant Amadou Ribaldé. Ici, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Alpha Condé face à 12 autres candidats qui, à serrée, veulent barrer la route. En Côte d'Ivoire, la présidentielle est prévue le 31 octobre 2020. Sud FM Seine Radio sera sur l'événement avec notre correspondant permanent Justin Assalé. Ils étaient une quarantaine de candidats au départ. Le Conseil constitutionnel en a retenu quatre pour la course à la présidentielle. Qui sont-ils Que valent-ils et que proposent-ils Nous le saurons dans le spécial élection présidentielle Côte d'Ivoire. Présidentielle américaine de ce 3 novembre 2020, Trump sera-t-il réélu Notre correspondant Dambabou fixe déjà les péripéties des deux candidats comme si vous y étiez. Tout sur les présidentielles africaines et américaines, Sud FM et son réseau de correspondants permanents, experts et analystes pour décortiquer l'actualité géopolitique en permanence. Toutes nos plateformes seront ouvertes aux ressortissants, tous ceux qui veulent participer ou échanger leurs commentaires sur ces élections à enjeu. Sud FM, Sen Radio, la radio des grands événements. màggalub Touba atum 2020 Sud FM seen rajo di ci gunge mbokk déglukat yi amal ci émission boo xam ne kat ñu ngi ko duppee 18 safar te émission boo xam ne dina am bés bu nekk ginnaaw xibaar yi benn waxtu ci njolloor gi ak Amadou Moustapha Dieng ñu war a ci waxtaan ak yéen ci lu bëree bëri ci wàllu màggal googu bokk na ci jaar jaaru sëriñ bu tedd bi xuus ci wàllu xasida yi waaye tamit màggal gi nga xam ne kat dafa tombeek lu jëm ci wàllu mbas mi du ñu fàtte tamit assainissement wàllu Touba ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xibaar yi nga xam ne kat dafa ñeel màggalu Touba gi 18 safar bés doon si 98 point 5. waaw loolu nag bu ngeen ko déggee xam ne nag mën nañ mën nanoo xuus nag euh, ci kafe euh, Touba gi euh, café gi ni mu accès neex na leen. waaw tarkal ah Mbacke. ah mu ngi jaar yoon. waaw kon baax na kon baax na maa ngi leen di nuyu di leen di ziar sëñ Mbacke Sylla ak oustaz Maodo Faye. waaw waaw jërë ngeen jëfati waay. man kay man diw bi jaaxal na ma loo wallaahi kii tax ah dama ko doon namm. ah doo namm eh, eh, sëñ Mbacke Sylla waaye auditeur yi dañ ko namm man dama koy namm. waaw ah, yéen ma waaye man man eh, <laughs> bi ñu def maa ngi moom bi keroog alxames. daf cee am buzz quoi. waaw daf cee amaale buzz <laughs> bi dafa bëri ay vie bëri na waaw émission bi nag dafa am euh, waaw mu euh, euh, loolu koy mën a ko information yow bu fàttali ne mën nga toogal quoi. quand même <laughs> waaw loolu loolu garaawut quoi. mais dellu di leen nuyu di leen bëgg sénégalais yi kontaan nañ bu baax baax a baax ci duo bi ah euh, sëñ Mbacké Sylla ak oustaz Maodo fay parce que waxtaan bi dafay am solo am niveau mhm. ah, aussi c'est très très important ndax fii moom li ñu fiy teg yëpp niveau lay àndal waaw ñun duñu duñu wàccee niveau jamais dañu koy gën di yéegal rek saa su ne mhm. euh, tey bëggoon naa ñëw ci un tout petit màggalu Touba euh, culturellement parce que aussi xam nga màggalu Touba euh, bu ñu ko jàngatee bëri na ay pàcc mais culturellement sëñ Mbacké Sylla oustaz Maodo fay nak lan la ñu mën a jàngat ci màggalu tubaa ak Touba ci boppam ak euh, ak yu ni mel euh, pour par exemple bu ñuy wax culture sénégalaise et tout ça culture religieuse dafa am aussi lan lañ ci mën a jàngat ci culturellement. waaw xam nga xam nga xam nga mouridisme boo ci boppam. Hmm. boo jëlee yoonu murid. Hmm. yépp nga boole leen samp leen def leen dañoo delloosiwaat yitte ak àqu ak personnalité nit ku ñuul. Hmm. waaw mu mouridisme loolu boo ko xoolee ba xool. waaw Serigne Touba fexe na ba nit ku ñuul lu mu ñàkkoon ñàkkoon daraja wala mu njortoon ne daa war a ñàkk daraja. Hmm. fexe na ba delloosiwaat ko ne ko si yëpp laa defe woon gën leen a jox personnalité. est-ce que xam nga comprendre nga moom hmm, que fexe na ba gëm loo leen seen bopp. maanaam fexe na ba gis nga seen comportement am murit ñaare boo ko nee jàkk da nga koy daal di xam xanaa mm. mbàkke da ngay xool xam doo xam lu mu doon mm. mais gars yi xam mu mm. euh, nga bowol dafa am dafa am aada xam nga bowol bu yàgg bu demee ci histoire du Sénégal dafa amoon ay dammeel amoon ay ñu fa daan nekk di reeñe ba ci sama bokki séeréer yi ay ñoom buur seen kumbandoo fen ko fen ku mbàkk yooyu yëpp dañ fa amoon léegi nag bi sëriñ bi ñëwee yi mu ñëwee amoon na lu mu fa fekkoon mooy ak ceddoo xeetu buur noot nit ñi ak yu demee noonu. Hmm. léegi nag bi mu récupéré boppam te nar a dem ci yoonu siraatal mustaqim hmm. la mu def moom mooy ñi ko njëkk a wër daf leen a jox fulla. est-ce waaw maanaam daf leen a ay ñoom am Cerno. Hmm. ak ak yi nga xam ak sant Jenn. Cheikh Issa Jenn Cheikh Issa Jenn. waaw ñooñu noonu mu fexe ba. nit ñi comme fu mu ci yóbbu ci béréb ñoo ñu respecté la léegi nag hmm. gaa yi daal di tàmbali am kóolute ci kaw nit ku ñuul entre nit ku ñuul hmm. kilifteef daal di dugg hmm. léegi sëñ to sëñ tubaab fexe na ba nga xam ne wekk gunu gars yi doon ragal tubaab bi baa ñu koy jox cër nun ñu jox ko suñu bopp noonu ba noppi loolu est-ce que comprendre nga. dëgg la dëgg la bu baax nag bu nu seetloo tarixa la boo xam ne bii ci yéen xam ci histoire tarixa yi. Mhm. mooy boo bi am neeg nit ku ñuul. Mhm. moo ko moo ko mooñ. Mhm. sampal ko boppam. dëgg dëgg la am na solo est-ce que ko bu baax euh, parce que comprendre nañ ko bu baax. li muy wax nag lu xóot la. loo xamante ne day day jara day jara di ko tikki. waaw day jara xoolaat voilà parce que euh, bi ngay wax ci culture. Euh, Maodo dafa delloosiwaat nit ki ci boppam. xam nga nit balaa balaa samp dara day samp boppam ba noonu boppam waaw gëm sa bopp waaw parce que boo sampul sa bopp loo samp mu daanu mm-hmm. parce que yaa koy filaat mm-hmm. euh, léegi samp sa bopp nag euh, foofu lay waxee ci wàllu nit ku ñuul mm-hmm. xam nga sëriñ bi ci wàllu ñuulaayu yaram dafa bind ne tëkkalewul ne nit ki xelam dafa dafa war a gàtt ah. wala day nit koo xamante wërta doon intellectuel wala mm. toujours rek daa war a doon koy toppee war naa ah. taxawalal boppam daal léegi ci culture boobu moo tax mu taxawal boo ñëwoon tey euh, ci environnement wu mouridisme da fekk dañoo am seen kàddu yu bopp léegi tey Maodo xalaat ne kii moom boo ñëwoon ci réew mi am na fu mu bokk ni ah, nga xam ne tey boo demoon Tiwaawoon ah. am na am na am na nu nit ki di solo nga xam ne kii ah, njabootu Cheikh Sidaji Malick la sëñ Mbàkke nag euh, li nga wax dafa am solo trop parce que loo foofu laa doon bëgg a ñëw mm-hmm. ci colin bi boo ko gisee mm-hmm. xam ne culturellement am na lu mu représenté il en est fier mm-hmm. ci waxin bi ci waxin wi da koy dégg xam ne am na lu mu représenté il en est fier nekku fii di revendiquer ay dégg na tubaab ak déggul ah, tubaab ak dégg na anglais dégg na li mu dégg mu ngi koy làkk na mu waree te koy dégg ba ci ba ci kër yi sax waaw ba ci ba ci kër gi sax ni muy positionné woo ni néeg di bindoo ni mm. kees yi di eh, di di nekkee mm. waxande yi waaw waxande yi mm. yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa culture maanaam dafa am seen seen melokaanu bopp woo xamante ne ni dañ koo dañ koo dañ koo sampe noonu eh, li sëñ wax xam nga tey bu fekkente ne Euh, maanaam sëriñ bi dafay fekk tarixa yëpp hmm. jaar ci yëpp xam yëpp nangu yëpp nangu baaxul ñëpp waaye mel ne koo xam ne dafa woote waat leneen loo xam ne day boolewaat tariixa yëpp ba noppi du génn ci seen biir mm. ndax tey fi mu ne bu la Maodo doon tekkil baatu muriid li muy tekki mm. muridullah mm. li muy tekki bu ko tekkee ba mu jeex euh, képp ku nekk ab jullit daal di nekk muridullah kon nag kon nag euh, oustaz tekkil ma loole waa xam nga muridullah waaw xam nga moom kay xanaa daf maa bëgg a sonal waaye tey moom maa yor xeer yi waaye moo gën a xam fëpp <laughs> xam nga xam nga arab dafay dafay làkk woo xam ne loo ci bëgg a firi da ngay dellu ca asl ba mm-hmm. xam nga araada mm-hmm. ah, yuridu lañ mm-hmm. waaw yuridu mooy fi'lu mu daarir bi maanaam ki nga xam ne dafa nam ma dara ah, moom la moom la ñu mooñ di ko mooñ ba indi ci baatu miim googu te ko tudde ko murit murit waaw mooy ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne kii dafa am lu mu namm te ko sàkku ba ma dégg nga moom den bàkke bu baax bu baax araada yuridu man damaa bëgg de bu ma nee tey uridu an azhaba ila mm-hmm. dakar ah, mm-hmm. mooy damaa bëgg mm-hmm. dem dakar kon léegi kon ci murit gi kon am na loolu nam maanaam maanaam ki nam man nekk nekk koo xam ne kii day bootu ci siraatal mustaqim mhm. man noonu laa ko mhm. jeex na ci tawil mi ngoog léegi nag euh, ki ko wax bi mu koy tekki ne mhm. euh, parce que li Maodo wax ni loolu mooy sensu mot bi boo ko tekkee mooy ki nga xamante ne yàlla dong la bëgg mu ne mooy ki nga xam ne moomu dara dara moomu ko maanaam mu tekki laahi na muy yàlla <laughs> jeex na moom moom daa bàyyee boppam borom mooy muridu laahi waaw bëgg ci xolam kenn ku mu bëgg yàlla yàlla loolu mooy tekki boo bu direct bi mhm. léegi am na yu ne ci biir mhm. mu ridu laahi mhm. léegi yooyu laa bëgg nga ñëw ci sëñ Mbacke si waaw xam nga xam nga waaw xam nga xam nga léegi bu ko sëriñ bi tëralee ba pare ay jéego la yoo xamante ni nit ki day dox jëm fa bis bi mu koy def bis bi mu koy samp ca Mbacke Kajoor dafa xëy suba Euh, ba jant bi di fenk ci yor-yor bu dëgër mu dajale ña ca daara ja. Hmm. ne koo xam ne njàngum kese kese kese moo ko fi indi woon muy jàng alxuraan ñu tëralal la bind nga dem. Hmm. man ngaa dem wute ji ko feneen. parce que hmm. yeneen i daara am na fi. koo xam ne nag yoon wi ma sóobu da nga cee bëgg a sóobu ànd ak man yoon wow mën ngaa ñëw ñu dem. loolu mooy lan mooy njàng moo xam day ànd ak liggéey. njàng moo xam ne day ànd ak defaru hmm. njàng moo xam ne day ànd ak defar bakkan njàng moo xam ne waa alhimma baat boobu nga jëfandikoo sax baat boobu mooy li nga xamante ne moom la wax parce que hmm. dafa wax ne yonent saa sallam euh, daf ko bi ne ko rabbi asxaabaka bil himmati hmm. wala turabbihim bi darsi xat na nga tàggat ñi nga àndal ci ñu am yitte yitte maanaam yitte mooy mooy mooy force force euh, yonent yàlla yaayaa bi ko suñu borom di jox alxor euh, maanaam téeréem ba da ko wax ne ko yaa yaayaa hmm? xusil kitaaba bi xuwa hmm. xuwa boobu mooy himma maanaam hmm. nit ki li muy def mu am ci mu am ci dogu maanaam mu am ci yitte euh, am am ci yitte sëriñ bi ci yitte la doon yaraate moo tax Nicolas bi sëriñ bi nekkee njaareem sëñ Maodo ci kër gi ñi nga xam ne ñooy daaj kër gi ñëpp ci kër gi lañ dëkk ñi ñi ñi bu doon tey maçon yi ñëpp ci njaboot gi lañ bokk ci la leen tàggate ñoo xam ne du ko wuti feneen yëre yi muy sol njaboot gi di ko sol man nga koo jëlee tey ci forme euh, li nga xam ne moom la wax turki njaareem yére bi loxo yi day xaw a rëy tuuti mm. euh, ci kaw day xaw sew tuuti suuf gi mm-hmm. yaatu mm-hmm. Euh, noonu moo koy defee nga xam ne peñu suukar la jëloon mm, dindi ko jël kayit wi nattal ko boppam mm. desinal boppam kayit wi jox ko ña doon dem ca guerre ba maanaam xeetu yére boobu ne leen bu ngeen demee li fekk seen kilifa ya ngeen di fekk terewu leen ko na ngeen ko sol mm-hmm. looloo tax tey boo demoon ba Amérique fekk fa taalibe murit mu sol tey sol goo xamante ne nii danaan danan danaan juggu Mm. takku maxtu moom kaalaw mm. waaye bu làkkee anglais nga ne xanaa kii du waa xanaa xanaa kii du moom nga xam ne lu man di xew day yóbbaale culture bi nga xam ne dañ ko mooñe woon day tax du mm. perte boppam maanaam dafa am benn tampon buñ ko dóor boo xam ne maanaam du métamorphosé wu voilà voilà du soppeeku voilà nga xam ne njàng mi du tax mu soppi doxinam te te te loolu mm-hmm. euh, euh, sëñ Mbacke dafay dafay tax sax ñeneen yi yeneen culture yi bëgg de découvrir sa culture yow parce que tout simplement dañuy gis loo xam ne mm-hmm. xamuñu ko mm-hmm. ñu ne ah lii bëgg nañ ko xam fu mu jugee ah, fan cosaanoo mhm. lan lay tekki et tout sa c'est mhm. important mhm. yëmut yëmut ci loolu euh, bu fekkee yëre yi la noon la ba li ñu daan wax tey tey jifére jifére euh, sëñ Maodo mooy yi ñu daan ràbb nga xamante ne bu ñu bindee alxuraan ba noppi ci biiram lañ koy dugal bu doon tey day mel ne fasetub alxuraan la woon waaye ay der lañ ko daan defee ràbb ko loolu sax da ci daan def benn politique ndax tey ñu lu mel ne ak maxtum lay doon waaw lu mel ne lu mel ne maxtum yi ngay takk lay doon ñu ko wax Euh, ay der lañ koy defee ñi gënoon a xam ñu koy def mooy ñuy wax uude yi mm-hmm. waaye sëriñ bi ngir bañ sa xeebante googu am da daan jël koo xam ne dañuy wax ne kii uude la mu binduloo ko alxuraan sant ko mu bind ko jël koo xam ne dañuy wax ne kii ci mbokk gi la bokk kii moom moo war a jàpp ne ku yëkkati mbagg la bokk mu jox koy der ne ko defaral ma jifire mm. nga xam ne noonu muy transféré maanaam profession yi voilà voilà rôle yi day day tax nit ki xam ne lii métier la rek mm. nit ki mën na koo def ak nu mën a sant ak mën a bokk ak ku mën nangam mm. gis nga sëñ Maodo toog a liggéey ni ab sëriñ la léegi la xew mais sëriñ bi loolu mës sa xew ci ci jamono amul sëriñ Mbàkke si la nga ne toog bañ a liggéey toog bañ a liggéey ba pare naan sëriñ la fas sa say loxo di xaar di xaar ñu jox la léegi la xew waaye mës sa xew sëriñ bi ñu jàpp ne moo xewal loolu ba ba ñu bari tudde seen boppam seen bopp toog muy dox dundam gépp mës sa moom boppam moom mës sa toog muy dox ah. daa wër muy dox daa wër àdduna bépp muy dox ba dellu lool ba dellu ñu def ko résidence surveillée ba mu wuy ji boroomam mbir mi door a dox est-ce que est-ce que du ngeen baal ma est-ce que du ñàkk jëriñu boobu noonu may faral di dégg fa lay jóge maanaam euh, nekk ca liggéey ba ba pare jëriñu ci waaw <laughs> loolu mooy loolu mooy li muy wax liggéey ah. liggéey rek waaw xam nga xam nga xam nga Mbàkke day def Mbàkke daanaka dafa tënk waxtaan wi xam nga hmm. Cheikhul Khadim hmm. eh, boo bëggee xool ay mbiram li mu wax nii li mu mujjee toog sa yëpp di dox nga nekkook sëriñ ci jamono Sëriñ Tuubaa amutoon hmm. waaw parce que ñi mu àndaloon ñëpp wër ko soit yaa nga ci àll ba wala yaa ngay rabat mooy rabat dafa di sàkket wala yaa ngay kii bu julli jotee mu woo ñëpp nu julli ba noppi tam bu paree dellu ca ba noppi tam nekk ca tool yi maanaam himma ji mu doon wax maanaam yitte ji mu doon wax sëriñ bi loolu la fi bàyyi woon. Mm-hmm. moo tax boo seetloo boo seetloo njàngale njàngale euh, euh, sëriñ Touba. Mm. nga xool ko bu baax a baax a baax daanaka li muy li muy li muy utiliser. Mm. wax nit ñi ñu baax. Mm. bari na ci ay waxam. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. maanaam ay waxam. li muy wax ne li may def lii pour bu ngeen defee lii baax. ci lii waaw moom loolu rek lay wax. wax naa ko fii ci sunu émision bi passé koo xam ne ki day kilifa. ne la yow kat Nicolas man bu bëggee boo bëggee ñu jubookaay man kenn ku nekk la nga baaxale rek laa bokk ak yow. Mm-hmm. Mm-hmm. rek waaw kon mooy kon mooy lépp lu négatif. Mm-hmm. lépp lu bon kon ca yow la jógee waaye moom sëñ bi loolu yoonam newu ci. léegi nag ki toog di ki toog moom comme ni ko Mbacke waxee léegi ne lépp nay dox. bu xooloon ci. ka nga xam ne moom daa sonn mu door a dox. Hmm. ndax dana wax wax jooju. déedéet déedéet <laughs> am na am na solo euh, xam naa ne mbokk auditeurs yi chaque jour ci euh, Café Touba dinañ xaar bu ñu dee jeexal euh, waxtaan yu am solo yi ñu leen di faral di indil. Hmm. indil nañ leen fi waxtaan bu am solo bu sëñ Fallou Mbacké. Hmm. ñu tegal ci bu bàyyilaat n'est-ce pas. tey nag dinañ ñëw ci waxtaanu sëñ Saliou Mbacké. xam naa ne loolu xam naa copain ay jeunes yu bëri yoo xam ne. waxtaanu sëñ Saliou dañ ko bëgg seen biir xol parce que daf leen di daf leen di indi indi ak yóbbu fu sori non xam nga xam nga xam nga sëñ Saliou moom lañ mujj a gis sénération mm-hmm. euh, bu mujj bi moom lañ xam tey ki lay topp danaan fi nga tëbee ak fi nga daanu si sore na diggante bi lu bari dox na fi maa ngi koy wax léegi sëñ Maodo ndax ginnaaw sëñ Abdul Ahad ku ne xam ne ne sëñ Abdul Xaadir eh. moo ko wuutu euh, ci lu matut at waaye sëñ Abdul Xaadir mm. boo doon wër tey ay image mm. muy jullee ngay gis wala fu mu jëmee ca jumaa ja wala yu demee noonu waaye doo xam waxam waxam waaw loolu loolu moo tax diggante boobu mm. loolu dox fi euh, sëriñ Saliou mooy juróomeelu xalifa sëñ Touba danañ ci ñëw léegi nii ah? danañ ci ñëw léegi nii laata ñuy dugal waxtaan bi rek nga tasal ñu loolu lépp dafay am solo mais euh, xam nga ba ma demee Touba euh, bi ñu bi ñu bi ñu demee àggee fa ñu fa doon dal euh, man la ma njëkkoon itteel mooy ne cabax dugg ci bibliothèque bi. Mm-hmm. parce que voilà man culturellement dafa am lu bëri loo xam ne euh, dama koy soxla ci wàllu information ci wàllu ki ma il faut ma dem ci bibliothèque bi euh, visiter ba pare jéem a gën a xamanteeg euh, yu ni mel moo tax ma ne sànq culturellement ça représente beaucoup de choses gis naa fa yu ma yéem yu bëree bëree bëri ci ci ci bibliothèque bi et sa ça ça que comme ni ñu doon wax sànq àdduna bi. ah euh, livre yaa ngi fi ñu bàyyi kon ñoom bu ñu ñëwee dinañ am ci lu ñu sukkandiku par rapport ak bind yi Euh, bindu sëñ Touba. Euh, il a a parlé de tout en fait. bind na ci lépp. ah euh, dafa daan bind lu bëri moom. dëgg la xam nga xam nga xam nga ci bindam balaa sëñ Maodo wax. Mm. ma jiitu ko ndax damay bañ mu wax li ma nar a wax. Mm. <laughs> wóorut daal wóorut. dafa am yoo xam ne du ma jiitu sëñ Mbacke nga ne laata. Euh, Maodo di wax Maodo di wax damay bañ mu wax li ma a wax. ma ñëw naan ko sama lañ ak yooyu léegi loolu laay bàyyi li ma lañ dama koy teel a sàq mi. dana ko sàq mi kon rek sëñ Mbacke waxal balaa baal ma sàq euh, xam nga tey mbindum mbindum mbindum sëriñ bi mm-hmm. Nicolas Sokola mm-hmm. dafa bari ci ay maanaam ci aspect yu mu bind. Hmm. bëree bëri li ci jiitu ci wàllu jaamu yàlla. Hmm. dafa wax ne maa ngi leen digal ngeen jàng xam-xam te jaamu ji yàlla. Hmm. daal di wax ne man sama bopp warlul naa. warlul naa bindal leen. xam-xam yi ngeen war a soxla ngir jaamu yàlla. ci la jëlee lu mel ne laxdari yu woyaat ko muy jëw jawharu nafis mhm. mu jël euh, yeneen i téere mën naa koo tënkee noonu mhm. euh, lu mel ne euh, yenn téere yi nga xamante ne moom la wayaat muy mu nawiru sudur mu layinu sudur ay téere yu mu wayaat mhm. lu mel ne tasawdu sixaar ba ci masaalikul jinaan bi nga xam ne téere imam Xazali bi nga xam ne mooy ihyaa ulumuddin moom la jëlaat wayaat ko muy nekk loolu loolu mooy aspect bi nga xamante ne wàllu woowu lay jàngale mu am beneen côté boo xam ne tagg yonent bi lay doon am beneen côté boo xam ne julli ci moom lay doon mhm. am côté boo xam ne yi muy woy lay doon moo tax mu ne salaatu sitta bi matxi sitta mhm. taatihi batta maatisaa i mhm. maanaam weer wi fukki weer la ñaar at mi juróom benn weer yi damay tagg yonent bi juróom benn weer yi damay julli ci moom boole ci ak di ko roy waaw euh, très bien xam nga euh, wax na dëgg loo loo xam nga moom li ma lay wax baa doo li mu wax ah déet moom kay li ah, ma daan <laughs> ah, kon wax na li nga naroon wax waaw moo tax dafa dox sama maay nag dafa dox sama maay loolu il faut ma jéem a lijjanti gi non non naa ko de <laughs> il faut ma jéem a lijjanti carte gi pour xool bu abyaadu sëñ Tuubaa yi lu euh, ma lu ma ciy dugg mais danaa ci dikk léegi xam nga eh, eh, eh. Euh, Mbàkke li mu wax daanaka tënk na wax jépp mm. Sëriñ Tuubaa dafa bind ci ay niveau yu bokkul mm. dafa am foo xam ne fii ci ibaadaat gi la mooy ci jaamu gi comme li nga waxe léegi mm. ragal yàlla gi jaamu yàlla ah, lu mel ne axdar yu axdar yu téere la bu ndaw boo xam ne bi day jàngale julli ay ay ay jàpp bu sa koy defe rek mu defaat ko ci jawharu nafis boobu mm-hmm. tënkaat ko gën ko faram-fàcce ne ba mu gën a baax mm-hmm. am ci niveau yoo xam ne buy wax day wax digganteem ak yonent bi ak ak ak kii yu mel ni ay sindiid yi dagg yonent yu mel ay muwaahiboog yu demee noonu mm-hmm. masaalikul jinaan nag dafa wax lu am solo ndax sëñ Bamba da cee tënk imam Xazali yi lu bëree baree baree bëri te imam Xazali perse la woon bu dëkkoon ca Iran nekkoon ci mutasawwifuuna yi gën a garaaw moom moo bind Ihya Ulumuddin wax na léegi moom moo xoolaat moom sax demoon na ci jamonoom histoire ba xaw a def murtat dellusiwaat léegi nag bi mu bind Masaalik dafa cee wax ay wax yoo xam ne yii. Hmm. dafa am solo ba pare delloo si waat Serigne Touba ni mu ni mu bëgg ku teg tànkam ci sunna yonent bi. dëgg hmm. mu ne raj mu ne mu ne rajaul janna. Hmm. bila bi sunnatil maahi. xuruurun yaati mu ne xuruurun yaati. est loolu na ko mbàkk firi. tey du ma ko firi. Serigne <laughs> bi nee na koo xam ne dafa yaakaar aljanna. te nanguute jaamu ji yàlla. ay wor doo nga ko nar a dikkal waaw maanaam ku bëgg àjjana da ngay jaamu yàlla da daan wax naan àjjana àjjana ju maanaam daal bëgg àjjana hmm. te nanguwoo jaamu yàlla àjjana jooju Ahmadu xamu ko kon bëgg a dugg àjjana kon kon kon bëgg a dugg àjjana dafa am lu muy àndal dafa am lu muy àndal waaw mooy rajaul janna jooju mu teg ci bila taatin bi sunnatil maahi mu ne xururun yaati moo tax ci mbind boobu li la sëñ Maodo di wax ci mbind yi ci ngay dégg li ma doon wax léegi nag dafa bari ay dimension yi muy wax niveau waaw da ci hmm. am côté yoo xam ne tagg yonent bi la hmm. lu ne ko yonent yàlla Muhammad mais mais mais xam nga li ma jaaxal xam nga sànq maa ngi leen naan ba ma demee Touba mhm. maa ngi euh, dugg ca euh, bibliothèque ba xool bu baax a baax kii d'ailleurs euh, am na foo xam ne dugg na loolu moom du ma dugg ci détails yi mhm. parce que am na luñ ma ci wax lu fort loo xam ne boroom xam-xam yi dem nañ ba xamal ma ne foofee ñu ma dugal man dama génn ñu bëree bëree bëri di ma wax li nga li nga am mhm. néew nañu ko am de santal yàlla bu baax a baax a baax loolu c'est une autre loolu c'est une autre histoire mais euh, euh, bibliothèque boobee ak bindu Serigne Touba yooyee lan moo waral duñu ko utiliser euh, aujourd'hui à bon escient bu ma waxee utiliser mooy maanaam bu ñuy wax par wàllu éducation nationale par mmh. exemple mmh. Hmm? pourquoi est-ce que duñu utiliser ay bindu sunu sunu mag ñu baax ñi ah ngir ngir jàngal ko xale yi ndaw ñi tout tànk yi waa xam nga xam nga dangaa insister ñaari yoon ci bibliothèque boobu mmh. te bibliothèque boobu mënu ma koo tudd tudd ma Sëñ Abdu Lahat mhm. waaw ndax moom euh, moom daanaka xam naa ne moom xam naa ne bu deful léppit mhm. lu ca bari moo ko def waaw ci waxin waaw te mhm. Mbàkke sax confirmé na ko ne Sëñ Abdu Lahat moo def lépp moo def lépp ba tëdd ci biir waaw ñu denc ci biir waaw moom lañ def foofu sax faf te dafa am solo parce que da ngay génn bibliothèque bi rek janoog euh, jumaa ji donc génn bibliothèque bi rek dem julli ji dafa fort ba mu koy def metti woon na lool mu mu toogoon ci jamono képp ku fi am loo xam ni sëñ bi yaxaloon na ko mbaa mu bindoon ko mm. dajale leen ko indil ma ko mm. ñoom sëñ sàmbay mii la jëloon mm. ñu def ay tarjama maanaam ay traduire lu mel ay masaalikul jinaan ak yu demee noonu mm. yëmul foofu mu téere buy téere xam-xam mm. alxuraan ak lu ne ñu fexe ba dëxañ ko foofu ndax loolu àddina day dox àddina doone léegi li sama maam bi ndong ci laa yem ndax àddina bi foo nga évoluer Sëñ Blaat nag yàlla ubbi woon boppam ci fànn boobu mm-hmm. mu nekkoon koo xam ne ki éducateur la woon ndax bàyyilaat ay kàddoom yi muy génnee mm-hmm. mas naa ko dégg mu firi benn aay bu inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin xataa yuxayyiru bi anfusihim ba hmm. muy ba muy def tawil bay tëj aaya bi daanaka sëñ borom moom lu àddina yàgg-yàgg du war mukk hmm. waaw xam nga loolu mooy firi lépp ndax hmm. yàlla comme du war foo ko fekk rek fa la lay fekk léegi kon inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin jooju xataa yuxayyiru maa bi anfusihim joojee noonu la ko waxee kon nag kon kon bibliothèque boobule la fa ne dib xam-xam loolu day day nag loolu volonté politique ah. ah loolu volonté politique. waaw ndax bu keroog loolu nag oustaz dafa maa jaaxal. waaw loolu bu dama naan dama naan dama yooyu yëpp. lan moo tax mu war a rester ci domaine. religieux bi kese. parce que waaw euh, bind yooyu lan moo tax mu war a rester ci domaine religieux bi kese. Mhm. maanaam ñu féetale ko euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci religion bi kese mhm. alors que ci ci àdduna ci boppam. war mhm. naa mën a jàngal ñu bëree bëri bëri rawatina tout tànk yi. wallaay boo boo taggee olof mooy wax ne tagguwaay woo gis xasuwaay am na koo xam ne la mu waroon a def da koo defut euh, état da cee am wàll waaye ñun ci suñ bopp dañ ci am wàll su ma waxee ñun nag mooy parce que xam nga hmm. àdduna hmm. sëñ Tuubaa xam-xam rek la fonkoon hmm. ma wax la ko képp xam-xam dong lu dul xam-xam mosu koo fonk li ciy firnde nit mosu koo jox lu mu nangu lu dul alxuraan ci lu wér mës ta teral ku dul ku ne ci njub wala ku ne ci alxuraan wala ku ne ci xam-xam tey kan lañ gën a fonk waaw ma bàyyee xel yi ñu laaj kan lañ gën a fonk hmm. ndax borom xam-xam bi bu demee moom lañ gën a kopp-koppal teg ko ci kaw ba yëkkati xam-xam hmm. wala borom daraja ji la doon wala nit ki siiw rek la hmm. wala borom grand boub borom grand boub bi ku ne xam na ne borom xam-xam bi moom mooy topp ci yëf yi di daw waaye yëf yi moom kenn kenn dabu jiw ko di ko jox li nga wax nii ne dangaa dem visite ji bibliothèque ba néew na koy dëpp micro ne ko ba nga demee Touba ci lan nga demoon mun la ci bibliothèque ba laa demoon ah, damaa demoon xooli xam-xam bi ah, damaa moo tax li ñuy wax te du dëgg bari loo xamante ne amut bopp amut genn ca ba nëga ni paanu bépp mënu koo génnee nekkul ci téere yi nekkul ci wax ji waaye nag comme kenn gëstu jiwut xam-xam ki nga hmm. dajal ci mbedd bi mu di la ko wax loolu ngay jàpp eh, loolu kay ci ñun li nga wax nii man ba ma ba ma duggee ca euh, ah. foofu ñu bëri dañ maa ne effectivement euh, d'ailleurs ñi ma fekkoon ci euh, bibliothèque bi sax dañ ma ne lii daf ñuy neex maanaam taalibé bu ñu ñëwee fii tamit ñëw sàkku ci xam-xam parce que taalibé bu ñu ñëwee d'habitude dañ naan damay dem ziare ji sëñ Fallou damay dem ziare ji sëriñ damay dem ziare ji ok c'est bien mais après dafa am ay bind yoo xam xam ne dañ ko fi teg c'est-à-dire la siyaare ji sëriñ bi mm. li ngay jàngee ci bibliothèque bi mm. moo la war a waajal ni ngay siyaare ji sëriñ bi ah. Ah, waaw parce boo xamul nooy siyaare waaw sareet du jiitu fos nit da ngay gëstu ji li ngay xam ba noppi door a dem gës door a dem man koo defi fa ngay defi mu am njariñ mm. xam nga sëriñ bi dafa bind lu bari dajale ko sonn ci lool jàngale ko léeg-léeg ñun ñu toog ñun ñi di waxtaan peut-être nga am ñooy neexal di wax ne dañoo war a jàngale suñ mag ñi ci école bi dañoo war a jàngale sëriñ si école yi mm. mais suñ mag ñi seen saal yi moom sax jàngale leen fa mm. seen saal yi moom sax ñu toog seen conférence bopp yi ñu am seen am sax jàngale leen fa seen cérémonie officielle yi ñu am sax ñu toog waxaluñu leen fa ah. yeneen i compte la ñuy ak yeneen i yëf yoo xamante ne nii mm. euh, léegi nag responsabilité la yoo xamante ne mbirum àdduna la kenn ku ne sa maslaxa àdduna ak sa yëfi bopp loolu nga jiital ci njàngale mi moo tax nag ñi xam ta xàmmee ñooy gëstu ba jàpp ci yëf yi ci def nekk ci kaw rek ah, nag di tëmbu te fekk la am solo ci biir xam nga Mbàkke dafa wax lu am solo ñàkk a ñàkk a xam loolu nekk ci bibliothèque yi li muy indi mooy mm-hmm. dégg ñu waxal sëriñ bi loo xam ne lii mm-hmm. soo doon xool soo doon xool source bi doo ko gis waaw waaw parce que sëriñ Tuubaa ba muy dem dafa am ay seede yu bare ñu am nañu bind ci moom mm-hmm. euh, téer gis naa barki dem nga laa yore benn téere sëñ Basiir waaw waaw eh, bu sëñ Mër Lamin Jóob da nga nag irwaaxu na dim irwaaxu na dim yooyu ay téere la yoo xam ne lu bare nga ca am na yoo xam ne ay source la boo ca delloo da ngay fekk affaire yi mais benn waay bu takk rajom naan sëñ Tuubaa def na lii def na laa def na laa voilà te moom boo ko woon ci ruq bi ne ko sëñ bi mbir mi jox ma dalil bi maanaam wax ma ana anamu ah. du la jox sursi bu mukk diw nee na ma nanga waaw diw nee na ma ne daa a <laughs> a mm. a kenn du moom a ah, ah. sëñ Touba non kenn loolu yàlla dogal na ko ba pare loo ko yéem doy loo ko yéem rek sëñ Touba yéeme na yéeme gu tol noonu waa dëgg dëgg ah, li ñuy wax nii ah. tegtale wul ne sëñ bi daa yéeme wul de ak a yéeme waaw ak a mission wam ak a jàmbaare ak a am jom ak a ñeme wéetaay ak a nangoo tumuranke waaye nag dafa wutal boppam aw tur hmm. ne abdullahi wa xadimi rasulihi hmm. kese yii ma def nii yëpp bi ma koy def jaamub yàlla laa hmm. di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon génnuma ci nit ñi ci nit ñi laa bokk benn bunt doo nga tëju mooy buntu nekk ab yonent yonent bi nee na beneen yonent dootu am tëj bunt boobu waaye lu dul loolu nag nit Hmm. waaw mooy juhdu yi la woykat xam waram daal yaa ko wax xam ku ko waxti hmm. bi xadril kat di tukku tasabul maani wa man talabal ula ah. sahira layaali déggal loolu loolu rek loolu sax am na fa nga koy yaxale yéen a ngi yëngalati réseaux ah. sociaux yi de sëñ Mbacke ah. yaa ngi yëngal réseaux sociaux yi jamono ji waaw non maa ko yëngal yaa ko yëngal nag bul waxati yëngal bul waxati yéen ah ma wax sëñ Mbacke si la yaa yëngal réseaux sociaux yi déggal loolu oustaz waaw dégg waaye dégg xam nga man sama nekkul woon fii rek wax ci day am njëriñ xam nga bu ma fi nekkee lay gën a inspiré wu su ma sa bi di génn. Ah, waaw waaw waaw parce que xam nga man maa lay cuq ngay génn. Ah, te man boo ma cuqee ma génnee. Ah, damay jaay jom daal boo fi nekkee. waaw boo fi nekkee il faut nga am nga am jom. loolu baax de. maa ngi maa ngi profité occasion bi parce que ci réseaux sociaux yi. Euh, ñu ngi leen di euh, y' a bëri ngeen ay soppe. Mm-hmm. wante it femmes yi bëgg nañ leen trop y' a beaucoup de femmes oh, qui Mbacké de moom xam na torkal. waaw ah, y' a beaucoup de ah. femmes qui vous apprécient dans les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux jigéen moom ñu jigéen ñi moom Maodo jiiñ na ma leen waaye jël naa leen. bilaay walaay xam nga ñoom dañoo paax. bilaay walaay góor baaxut bilaay walaay <laughs> ah. góor moom xam nga bis buñ dajaloo bis buñ dajaloo nga nekk magum jëmm boo mujjul dañ lay waajal donc wala ñu lay waaj a sang jigéen ñi ñoo lay dajale li jënd seen yëf man yéenay sama xarit naa leen ah, <laughs> ah, ñu ngi ñu ngi leen di bu baax di leen gërëm ah, ndax jamono yi yéen a ngi yëgal réew mi baax a baax naa ne léegi sax rajo yëpp ñu ngay def café Touba léegi xam nga xam nga lu baax tamit dañ koy roy très bien xam nga dafa wax lu am am solo ci ci Cheikhul jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla ak jub gi muy jub ak lu mu bëgg lu baax baax ci effort yi nit ki war a mën a def dem sàkku ji xam-xam mm-hmm. gis nga sax ci taw tasawudu si xaar yu mel mm-hmm. noonu lay wax mm-hmm. bu leen bàyyi bàyyi leen makkaan yu ñàkk fayda yi waaw wax la ci julli boo demee ci tasawudu si xaar wax na nga julli sax ku ko bàyyi la ca sëñ Tuubaa wax yooyu ko boo amee kilifa gu mel noonu mais lii sa kii li sa li sa himma li war a nekk sa himma. Mhm. mooy nga dem sàkku ji noo xamee kilifa gi. Mhm. Mhm. moom wàcc na. jàng ko moom ba xam ba xam ne ëllëgee kenn du la ci mën a nax. parce que parce que kat euh, nga baal ma oustaz. mais euh, ba muy bind. justement daf ko fi bàyyi pour ñu jàng ko. Ah, wax ah, ah, ba muy dem ko ba muy dem bind ko rek nii nii nii nii. Eh, wax jëf naa ngeen gis. waaw ma wax ngeen dégg. Hmm. ma bind ba fi. déggal loolu. xanaa léegi xanaa wax a. voilà léegi kay kuréel ah, sa bopp dañ xala wax day fin. <laughs> kuréel yaa réeral wax day loolu. <laughs> maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ Mbacke Sylla Oustaz Maodo Faye euh, café Touba bi amatina solo na muy amee solo saa su ne. Euh, message yi bëri nañu sëñ Sam Bousso ñu ngi ko ciy nuyu. waaw sëñ ah, Sam ñu ngi leen di bu baax a baax nee na waxtaan bi am na solo lool. Euh, bëri nay kilifa yi ñuy déglu jamono yii le ngi xalaat waa gendarmerie nationale ñu ngi maa wax ne bi daf leen neex trop police nationale également rawatina police centrale ñu ngi leen di nuyu ah la ndax ma ah. ne la ndax yàlla bi gendarmerie prise neex na waaw man bi mu koy wax sama fit yëpp <laughs> <laughs> non ma yi sant Diouf yëpp laa dugaloon ci ab saaku waaw oh, waaw ak policiers yi sant Diouf Maodo bàyyi ba ma génn ah, dama leen tax dama leen yow ci saasu saaku ñu rëcc xam nga man maay seen buur xam naa ne xam naa ne euh, màggal gi une semaine ci ci des xam naa ne bu nekkee ci yoon bi rek euh, bu ñu séenee sëñ Mbàkke si la rek danañ ne oh. waaw waaw waaw waaye ci yoonu màgg parce que duñ bëgg ba tudd leen donc dañ lay xoolal dañ lay xaajil dañ lay xaalil yoon ah, loolu neex na kon jaa ngeen jëf ba suba jàmm amul problème ñu ngi leen di sant di bu baax di leen gërëm mais euh, laata ñuy dem euh, sëñ Mbacke si la sëñ Mbacke si la jëlaatal jëlaatal micro ndax dafa am lu ma diggéen diggante ak euh, ak mbokk auditeurs yi damaa ne sànq bi may wax ne sëñ Saliou Mbacke laay jeexale émission bi tey ci waxtaanam waaw loo ñuy wax ci sëñ Saliou Mbacke wax ju gàtt di ko wax ci koo xam ne kenn mënta wax ci moom wax ju gàtt ndax liggéeyam dafa toll noonu Euh, Serigne Saalihu Mbacke Nicolas euh, euh, soxna Faat Jaxate ko jur Serigne Saalihu nekk juróomeelu xalif Serigne Touba moom lañ mujj gis moom la ndaw ñi xam bëgg-bëggam yu bari la woon waaye dara génnu ci jaamu yàlla da daan wax sax ne lu dul diine aw ma ci defar aw ma ci yàq. Mm. bari woon yërmande lool ba nga xam ne saa su nekk. ci lu yërëm nit rek lay dox xam naa ne euh, Nicolas Serigne Saliou da koy beral hmm. euh, da nga koy beral jotaayu boppam dañ koy déglu tey waaye da koy beral jotaayu boppam parce que surtout la nouvelle génération waaw da nga koy jeunes yi dañu ko sopp lool lool lool lool aussi bi nga xamee ne daf nga inspiré jeunes yu bëri mm-hmm. ci retour la terre jeex na ah, dem dellu ca tool ya bay parce que waaw moom tool yi daf ko mm-hmm. itteeloon torop mm-hmm. torop tout tànk yi itteeloon nañ ko torop torop on l'a vu à l'œuvre mais surtout tool yi yu bëri yoo xam ne ñuy delluwaat ci tool yi Serigne Saliou Mbacké moo leen inspiré effectivement li tax man la dañ ciy dellu xam nga jokkalante bi ni ñu doon jokkalante yëf mm. agsi ci moom dafa mm. nekk benn scène mm. kenn ku nekk fi sa jamono tolloon la fa lam fa laaj da nga caa sa kemtalaayal kattan moom nag jamonoom fi mu tolloon ci wàllu liggéey ak mm. defar ndaw ñi mm. parce que mag ñaa ngi doon dem mm. mag ñi àndoon ak sëriñ bi seeni sëta fii def mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li nekkoon ci mag ñi nga xamante ne loolu féeteem la woon féeteem la woon ku bëggoon ndaw la mm-hmm. ku bari woon yërmande la waaye ku doon soññ nit ci liggéey la ak jaamu yàlla mën nañoo yem foofu te déglu ko ba dellu si mooy borom jamono n'est-ce pas jërë jërëjëfati Alassane Wade ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mbooleem soppe yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, waxtaanu sëñ Saliou Mbacké moom laa leen di bàyyee tey euh, ci jeexantalu euh, émission bile di Café Touba nanu koy defee bés bu ne bu 11h weesoo ci Sud FM première radio d'information du Sénégal la seule radio sénégalaise présente partout au Sénégal et même au-delà puisque depuis quelque temps on voit que les Maliens les Guinéens les Ivoiriens les Burkinabés ils apprécient beaucoup cette radio la première d'information du Sénégal qui est Sud FM Sen Radio parce que c'est le choix de la différence n'est-ce pas et jamais viser la lune ñu doxante dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf jërëjëfati sunu sponsor boisson punch euh, euh, euh, ndoxu waalo ak tàngal bége tàngal bége ak ndoxu waalo ak boisson punch suba dinaa ci dikk jagleel leen ci yu am solo ngir lépp jëm ci yoonu màggal gi bu ko defee may ubbi antenne bi tous les matins di leen may ay ndox waalo ak boisson punch sëñ Saliou Mbacke ci waxtaan yu am solo yim ñu fi bàyyil mbokki auditeurs yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ba suba ak yàlla te yàlla ku ko fàtte rek. yërmaanee ma tax. yërmaanee ma tax. ndax kum fàttali duutoo duutoo tal lu may moom. ndax kum di ko ñaan yërmaandeem ak um njëggalam. di ko ñaan yërmaandeem ak um njëggalam. jaamu yàlla.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 noonu jëm ci yàlla. nan jëm ci yàlla. maa ngi koy fàttali bu baax a baax de. maa ngi koy fàttali bu baax a baax de. sama bopp laa njëkkee. te sama bopp laa njëkkee.